alaikum alaykum internet yi ñu ñëwal leen ci li gën a fës si bopp xibaar ñu dooree ko ak njiitum réew bi Macky Sall ñu déclaration de patrimoine maanaam wax am-am ñu wax diplomatie consul général ba nekk sa Milan Sénégal jëlee ko fa décision boobu mi ma nga ko conseil des ministres ba tey ci conseil des ministres démb bi njiitum réew mi Macky moo ngi ñaax jëwriñ ngi ñu dénk dem bi ak dikk bi mu taxaw si yeesal boobee secteur rapport IGE njiitum réew mi Macky Sall sàkku na ñu leeral li ñu takkal la FONGIP FONSIS ak DER. tijjite gi ñu amal ci jaww ji ànd na ak ay mesures ku bëgg tukki di nga def test coronavirus te di nga ci fay lu tolloo ko juróom-ñetti junni ci xaalisu Sénégal tàggat yaram njiitum réew mi àdduna ci Jeux olympiques gi Jeux olympiques gi ñu bëtal ñu waroon ko def 2022 mu nekk léegi 2026 boo leen taaxiloo tuuti ñu faram fàcceel ñu dooree ko ak njiitum réew mi Macky Sall ñax na ay jëwriñam ñu defi déclaration de patrimoine indi ay leeral ci seen am-am defal na leen ab war nañ ko def balaa weeru ut di jeex moo ngi jël boobu décision ca conseil des ministres ba doon am démb. ñu wax ci wàllum diplomatie Rokhaya Bature ma nekkoon ca consul général bu Milan ca Italie teggi nañ ndomboy tànk ma gannaaw ba ay coow amee ci digganteem ak ñu mu doon liggéeyal rax ci dool li ñu di ko doon euh, dégg ci ay mbuxum lu tollook un milliard yooyu yëpp tax na njiitum réew mi jël décision jële ko foofee ba tey ci conseil des ministre démb bi jiitum réew mi Macky Sall soññ na jëwriñ gi ñu dénk wàllum dem bi ak dikk bi mu taxaw ci yeesal gi ñu war a amal jëmale ko ci dem bi ak dikk bi ndaxte askanu Sénégal soxla nañ ko lool mu gën a taxaw ci aar transport bi ñu mën moytu accident yi bu baax a baax. bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci càmbar gi waa IGE amal Macky Sall sàkku nañu leeral xaalis bi waa FONGIP Francis ak Der yore di ko séddale ñu def si taxaw seetlu bu xóot ngir leeral di si lëndam moo ngi yëkkati yooyu kàddu démb si conseil des ministres ba tamit. gannaaw tijjite gi ñu amal ci jaww ji jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér gu yaram Abdoulaye Diouf Sarr xamle na ni képp ku war a dugg wala nga génn Sénégal di nga def test coronavirus di nga ci fay lu tollook juróom-ñetti junni ci xaalisu Sénégal laboratoire yi war a amal yooyee test ñooy Institut Pasteur Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation ak laboratoire de bactériologie virologie tamit diplomatie union européenne ci jiwaat na ay buntam réewum Sénégal gannaaw ba mu ko tëjee woon ndax mbas mi tasaaroo ci réew yi waaye nag gannaaw ay waxtaan nangu nañu tijji seeni buntu comme niñ ko defalee woon Algérie Tunisie ak Rwanda Maroc tamit mi ngi ci biir. tàggat yaram fomb gi ñu amal ci Jeux olympiques yi waroon a am 2022 njiitum réew mi Macky sàll àdduna si gannaaw ba ñu ko bëtalee ba 2026 moo ngi xamal waa CIO yi ko war a organiser ni pare na ubbil na leen ay buntam ba 2026 incha allah. ñu jeexale ko ak bitim réew France voté na benn loi buy delloo objet d'art réew Sénégal ak Bénin ni ñu ko waxee woon démb réewum France officialisé na ko delloo gi mu war a delloo sabre El Hadji Omar Foutiyou Tall bi ñu yoroon te ñu abaloon ñu ko mu nekk fii ci musée des civilisations noires de Dakar. mbokk internetu 5 TV lii la leen indiloon tey ci xibaar yi ci kàddu gi Issa Diop ci xarala gi Léo ñu di leen ñaanal kenn lu jàmm di leen jox dig daje ba suba ci waxtu wi.